Siarta ya baringanya idom ga cisona antanjay mor Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Bokki julidi bokki talibi Assalamu alaykum ta'ala wa barakatuh Bokki julidi bokki talibi دلين بالحق دلين بال دنيانا الشيخ محمد المنتقى سنو برام يحضر لكو في تغير لكو ونالي منالي يين كو لغير الشيخ الخديم وليفي بلين كو بغير تكون يعني الكلفة الديني الجلدي التالبي دي يكتسون كدو ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha Guèye nga xam ne moo woote bis bi tey sëriñ baa ngi nuyoo tàmbalee ko ci kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ŋànk kër gi muy bàyyi sëriñ Mbacke Guèye mi nekk xalifa sëriñ maa bi ñu ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko yàggal njaboot gi ci ginnaawam di jaarale nuyoo boobu ci jawrinam alxaaji Xamsatu Géey di ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér moom mi nga xam ne mooy buntam bu ci jaaralee nuyoo bi noonu lay jàlle ci sëriñ Moustapha Mbakke moom sëriñ Mbakke Mouhamad mi nga xam ne mooy kilifa ak ëtt bi jàll ci ay kilifaam Cheikh Abdourahman ak sëriñ Ahmadou Maxtaar jàll ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa sëriñ Moustapha nee na mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di siyaar mi ngi yeesalaat ak njëbbalam di feddliwaat ak taalibeem ci wasilaam wu baax wi way juróom wu baax wi di alaaji xamsatu di nuyu ñi mu bokkal sëriñ Mabéye yépp jataay bi mën nañu ko tàmbalee ci sëriñ Mabéye moom alxaaji xamsatu mi nga xam ne moo fi toog seenu jataay sëriñ maa bee noo ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal di la sant ci taxawaay bi ak ci wayef gi ak laabiir gi ak jotal gi sëriñ Moustapha nee na ci yow lay jaarale nuyoo gan ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk ko ci jataay bii tey tàmbalee ko ci sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso mi nga xam ne moo nekk imaam yi jumaay Touba kenn ku nekk xam digganteem ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ci ak wëllëre ci ak xaritoo ci ak jàppante sëñ Moustapha nee na mi ngi koy sant bu baax ndax bis bii bu ko ci boolee jox ko ci benn cër sëriñ Moustapha nee na dolliwul dara ci fonkeel gi mu ko fonk dolliwul dara ci jàpp gi mu ko jàpp ndax jàpp na ko bu yàgg waaye lii liñ ciy wane mooy firndeel rek ne nit bu la bëggee danga koy sàkkalu lay te cëru bëgg yëpp Serigne Moustapha nee na loolu moo tax waaye xam na ak ñàkk jotam xam na taxawaayam kenn waru ko déplacer sax ndax lim féetewoo sëñ Moustapha it nee na mi ngi nuyu waa kër sëñ Abdou Salam Ngom di leen sant bu baax di leen jaajëfal sëñ Seydina Omar bi nga xam ne moom la sëriñ bi dara jaale bis bi di diggante bu yàgg waaye lépp rafet ndax dañoo bokk ab jubluwaay. te kullu xisbin bi ma ladayhim farihim nit bu fekkee ne bokkoo leen foo leen jëm mënoo leen a ànd waaye danoo bokk ab jëmu te jëm bi di kenn muy Serigne Touba loolu moo tax Serigne Moustapha jëlaat bis bi jëmale ko ci ñoom ak mbooleem ñi fi teew ci wet gu nekk bàyyi ko fu nekk di nuyu jëwri ni kër gi di sëriñ Mbay Baas mi nga xam ne sëñ Modou Mbay Njaay wax na ko léegi te jii bi ñuy joxe fii kaamil yi bi ñuy joxe fii ay cadeau dongo yoo xam ne dañoo mokkal alxuraan ñu jël dara ji jooju jox ko alaaji Mbay Baas mu jottali ko loolu li muy tegtale mooy moom li mu doon ñaan danañ ko samp danañ ko suuxat yàlla jàppale na mooy tey jii làmp bi tàkkee woon ci ëtt ba fii nekk làmp boo xam ne taal na yeneen i yeneen i béréb loolu it nekk ndam boo gisee Serigne Moustapha tey jii ñu daje mu ne bala ñoo def dara na alxuraan di jiitu xam ngeen ne cérémonie yi fi jàll. كامل القران لاني جوخ تاي جي ني يمكال دونغ يو موكال تاي جيجن نك تا خام نين لي تي موكال القران ناخ يونتي علي الصلاه والسلام سيني بروم دي واني واتي تي القران نكو ان سنلقي عليك خولا ثقيلا كون نيبكول لو ويف بروم سبحانه وتعالى نينا لو انزلنا هذا القران على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس جمي القرآن الكريم بنكو تيغون تي كاو او بت دا نوي كون كي مانا بولي غوني ديكو تاقانتال اك ديكو لجنتي با موكل القرآن لولو اب يتيم اك تاخواي بوري لا لولو ورال تاي دونغي تامبلي في مو وني سيغ مصطفى ويدتو لا شيخ مصطفى واخون مو ماغ ما سيغ توبا la seigne Moustapha di woné wa Cheikh Moudou Moustapha dafa waxoon seigne touba nako ko ma bawoon ci laa ne tey jii sëñ Moudou seigne Moustapha lolou la wane leneen lum mu présenté woon lu dul dana am ñuko naw waye dana am ñuko du naw waye tay kèn mënu ko xeeb ndax liñ ko bàyyi ma nek ci benn hôtel ci bitim réew ñuy waxtaan ci gaay yu baax ku lay tuddu nit ba yàgg am ku jékki-jékki na man de seigne am su dooma jaaxal ma ne ko man ndax man miinu ma seigne am su bàyyi laa xam ma man japp na menen seigne am su manako mo wax yow seigne am su mo ne seigne am su duggee manako lo ci wax mu ne ma dama fay am tànk buy metti dana ma dégg góom boo xam ne nee na waxuma li ci génne ni mel doy na waar te xaw ma lu ma ko teg nee na ma ma dugg ak bàyyi ci oto na ne sama bi day metti mu ne ma yoroo foofu ñaar fukk ne ma yëkkati junni yokk mu ne ma déedéet ñaar fukk doy na ma ne ko sama tànk bi lu ma ci waay laaj jaral na nee na la ma bàyyi wax lam ma def damaa xëy suba nee na néew ma naan tànk bi daa bënn ndax daa néew woon néew mo ne fi la góom bi meloon damaa yeewu sax mel na meloon momako net di dem ci hotel bafor kon xamna na ma xam ko bu baax a ah nak gis nga jamono bi nit ñi dañoo amatut ku leen mëna nax te seigne Touba neena won jamono ngi ñew ñett dana fi jële ñett ñett wutu ko jamono ngi ñew dana fi iman seigne mustapha bari na mënu ñoo ñaan yalla mu nongu te ñak iman ko waral nit mënta boole nit di sàcc di la jox ak di mooy yàlla di la jox ak di fen di la jox ngay lekk naan yàlla indi day lang rasulullahi ko wax te laa rajulun yarfa'u yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa man seeta yaa bari nga ñaay doon nga ci soxna Anta Njaay